voilà ba tey ñi ngi fii nga xamante ne man moo ma nax fii nga xamante ne moo bax fii ci Sandaga nee naa la Sandaga la yàlla ba ba tax na Sandaga moo nekk tey ñu fi tourné suñu spécial émission xoolal Rismonjis e eh, xoolal Rismonjis ma àndoon ci xolal Misaan Jis séeréer xoolal Loti Jis nee naa leen émission bi kii la àndal Bass is Bass nee naa leen best temps yi moo koy dagate ba tax na xolal mooy boisson bi yàlla ngeen jël seen garde bu baax ci best parce que nee naa leen dana seddal xol ba pare neexal xel yokk ay vitamine C ci sa yaram nee naa la yenn calcium yooyu xolal best moo ko mën di remplir xolal yi ba tax na ñu profité ne ajaratu faat laay kenn jërëjëf ci bopp bi nee naa leen bu ngeen bëggee ay les wig yu baax da ngeen di def ca xolal complexe Safia xolal temps yi faat laay moo koy dagate nee naa leen ndakaaru faat moo poñe mooy defar ba mu baax xolal dalay defaral sa bopp di la jox jus ngay naan xadindoo yi ñu ngi lay nuyu yaayu fàllu galas mbub bi nag cëy li vert verte xoolal mbub mi kii ma ko solal xool mbub mi xool leen mbub mi borom kii quoi de neuf boutique quoi moo génn fii tey nee naa la tey bés la cachel couleur ba tax na ñu ngi gërëm euh, euh, euh, borom quoi de neuf boutique Fatou Kiné Ndour nee naa la yow loo def day baax xoolal loo bëgg a def day baax te nee naa la xoolal gëj ngaa ñëw. ci biir émission Rich Mon ba tax na rob bu baax bi ku ko bëgg da ngay dem ca Sacré Cœur borom quoi de neuf xoolal boutique ñu joxe ay de samb bu ndax bu baax. waaye yow nii nga defaree ba mu baax. ci fajar gi te eh, yow neel kilo bees. kilo bees. spécial Rismon Djizz waxoon naa leen nii lay demee te tey émission bi dafa ala daw mi parce que gis nga li xew ci jamono te neex moom laa leen di woon ci biir émission bi xolal muy neexal seen xolal keex. lu la neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko. yaaris mon ji sa li yee jaxte neex xolal nee la émission bi nii lañ koy tourné xolal yeewu suba teel ci 10 bi di leen bégal xolal ñun bañu ñu ci dara parce que xale bu góor bii ma taxawal xolal moom moo taxaw ci Sandaga di jaay yu baax ba tax nee naa la ku baax yàlla da lay ba max ba tax yaw la yàlla ba max neel man la yàlla ba max man la yàlla ba max neel man la yàlla la yàlla ba max e koy nuyu ci ay resam Aida Samb maa ngi ciy nuyu ñëpp bëggal sama gaay yi Samb ñi nga xam ne. ah yow waxatoo si micro bi mbaa jàmm. non jàmm rek gaay yi. Ah. damaa tiit quoi li ma gis laa mosul gis. Ah. oui. yow loo ma mën a wax xoolal lu baax. <laughs> lu baax waaye xanaa di bëgg si yow rek. booy eh, neel dafa nax. <laughs> dafa nax. de danga naan nii nii nii dafa ay dafa am feeling nag dafa dafa nax. dafa dafa nax. <laughs> xam nga bés est-ce que. lambal lambal nu mu mel. mu ngi sedd guy booy. ah bés yi. yow bés loo wax looy wax ci bés. bés di si bëggee rek bu ma sonnee rek bés laay naan. boo ko naanee nu muy def ci sa yaram. waaye day mel ni damay crampe. neel day remplir. day kon bés moomu yàlla. nee naa leen 2012 bi nii lay demee xoolal affaire yi dafay neex te xam ne neex-neex a ngi ci yoon bi taaxeer lu lay àndal boo taaxeerloo lu neex ñëw ak lu baax ba tax na neel neex égal. neex égal. neex re. neex re. eh naka de. sant bi koy nuyu seede sam bi. sama chéri xanaa mi ngi nuyu. da ngay sama mignonne jolie. sama mignonne jolie bébé Fatou. ak kan. ak sama gars yi. bébé yow foo ko def. mi sama biir xol. da nga naan fe foo def bébé Fatou. yow foo def sa mignonne. fii. da nga naan fe. yow yaa tuddoon. Papis. Papis noonu nga tudd ba tey. oui. Papis fooy jaayee. fii laay jaayee. fi ngay jaayee ba tey. maa jaay ooyi. Papis looy jaay. ooyi laay jaay. oh. neel ooyi. neel oy yàlla bu lox spécial Rich-mon Djizz nee naa leen xoolal nii lay demee saa su nekk di leen waxal yu baax yu neex nee naa la Boubacar Diallo ñun du ñoppi di wax ci yow gàcce ngaalaama waxoo ba nit ñi daw te doo gaaruwaale amoo temps wu kenn ndax xoolal diplomatie avec diplôme mën gis papa am bés am boisson la ma wax ak moom. waaw waaw lu may wax ak moom. ah man damaa xam lu may wax ci lii. waaye papa léegi yow waxal dafa ris mën gis. neex na neex na trop. waa neel dafa ris mën gis. dafa defoon gis. naka. naka. dafa ris jiis gis. dafa defoon gis. da nga naan dafa ris mën gis. dafa defoon gis. waaye sa waa kër ku la neex. ah naa ñëpp. ak ak yow mii. neel dafa nax. dafa nax. da naan nax nax nax. <laughs> <laughs> ba tax na paa bi may naa ko ay Aïda Samb bi papa yow koy nuyu si Aïda Samb ñëpp lay nuyu. ak kan. ak kan yaa am caaj. yaa ko dakk ah. Mhm. mais papa noo tuddoon. monsieur Mendy. monsieur Mendy ana madame Mendy. madame Mendy ma nga fa. est-ce que madame Mendy elle va bien. très très très très bien. mais monsieur Mendy fi mu nekk suba teel gi yow loo ciy def nii. Ah, mais de toute façon maa rek. ah waay di defar ba mu bax. bax neel ba mu bax. bax neel bax bax. ma la mayee bés looy wax. ana ma ma gërëm leen rek. ci tàngoor bi am. ok looy wax waa bes. waaw de toute façon ñu continuer rek. ne li yéen a koy tàggate waa bes. waaw ñu ngi lay tàggatee waa bes. nel bes mi yàlla bëma. Ah, bes bi yàlla bëma. spécial Rismon Djizz Aïda Samb bi xolal foofu lañ koy daggee jàll ci keneen ku baax ku neex ak yàlla bëma. man lee ma nax te man li leen neex moo ma nax ba tax na xoolal man yéen a may defal ba tax na yow e kati yow nanga nga maa ngi fi am kati noo tudd. aw fay. aw noo tudd. aw fay. aw fay. aw nga tudd ba tey. waaw kii sa xarit la. waaw xaritam nga. waaw li tax ngeen xaritoo. dañoo bokk rek. lu ngeen bok ñoo bokk ay cousine lañ. fu ngeen cousinoo. xanaa fi yëpp dem si aadama ak si papa wala si yaay. si yaay. neel si baay. ndaay ak baay neel si baay. si ndaay ak baay koy nuyu ci Pape Diouf di ko may waa Thiès yëpp sama papa sama yaay. ak kan. ak sama grande Dada. et ak kan. ak sama bébé junior. sa bébé Faye. foo def junior. fii. koo bëgg. yow. foo ma def. fii. ko bëgg. kat yi. ko def. fii. et ko bëgg. <laughs> sama yaay. foo ko def. fii. ba tax na fi mu nekk nii xale yi nuyoo nañ ci li nga xamante ne mooy xolol Pape Diouf bi nee naa leen ngeen koccoo la 14 nee naa leen ça va chauffer du leen nax. na ma ni yow lay jël wax na ma xol bi yaa ci nga lay yow dimbale ko jàppale ko xam ni mbëggeel moo metti naay laay lay la laay. naka leer yi. def waay waay grand yaa pote. waay weesu naa ko. mais grand yow noo tuddoon. Bamba Kara. mais Bamba yow looy galaxndiku. man jërëjëf borom Touba. waay xoolal kon ñoo bokk même galaxndiku kaay. loolu la. waaye Bamba yow xoolal yaa ngi rismon ji. loolu moo koy tojatee. moo koy dagatee. di ko këccatee. mais koo bëgg. Bamba Kara. foo def Bamba Kara. sa xol bi. naan fee. Bamba Kara. fii fii la nax. loolu la nuyu sa mbokk ba daanu yëpp waay. maa siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di leen wax xool di leen wax xool affaire bi Serigne xaar ma sol moo koy yor. moo koy daggate. foo mën aw moo koy këccate di koy corote. ndeysaan kon xoolal Bamba may naa la bés spécial Rismon Djizz ñu ànd ak yéen ci Pape Diouf bi di leen bégal ba tey xoolal di leen wax xoolal kii la yàlla baxal mbisaan mi yàlla oh, su xol yi àndee kàpp glace dafa metti lool mbëggeel metti lool ba jéggi dayoo su xol yi sukkante c'est dommage mbëggeel dafa neex lool soo bëggee ki la bëgg mbëggeel dafa metti soo bëggee ki la bëgg lamb yaa tey daagul fanam bee ni dafa neex lool mbëggeel neex ba jéggi dayoo. Eh, misaal xale bi dafa bëgg ma jël ko te dinaa ko jël ndax looloo ma neex nee naa la été bi nii la ñuy doxantoog yéen ànd ak yéen ci mbedd yi xolal fu waay nekk ñu di ko bëggal di ko waxal yu baax damaa nag xale bi jël paa bi paa bi na nga def. maa ngi rek. est paa nga. non du ma paa rek. doo paa di tax ngeen di bañ paa. ah non mais xam nga rek booy bëgguñu loolu. dem nga ardo wala demoo ardo. non dama dama bëgg nga yóbbu maar ma yow. yow da nga bëgg ma yóbbu laar yóbbu maar man dama lay génne saako yi. <laughs> génne ma saako yi ma génne la saako yi loolu laay xaar. Ah. waaw neel neel ngañ jaay wane ko roofoo. wane ko roofoo ngañ. neel neel ngañ jaañ wane ko roofoo. ngañ jaañ wane ma roofoo. yow papa fi mu nekk koy nuyu ci Pape Diouf bu baax. Pape Diouf waaw maa ngi koy nuyu bu baax. akan bon Pape Diouf ay ñoom ah, Wally. akan bon Thione Seck. akan bon Mapenda. ñoom yow da nga bëgg ma yóbbu la Ardo nuyu sa famille ngay nuyu artiste. waaw mais amul benn problème. nuyu sa famille. waaw maa ngi nuyu sama famille. akan ñoom ñëpp maa leen di nuyu. bàyyiwoo kenn jaaykat yi ne Sandaga yëpp ambulant yi tout. tey eh, neel dafa nax. dafa nax kon. neel nax nax. nax nax. Eh, eh, papa yaa pote am bés.